غير ضيف مات بالبسر xasiida ak yaa xayra dayfin cheikhul xadim radiallahu anhu moo ko bind mi ko bind jamono ji mu nekkee gabon ci ñetteelu weeru koor woo ko fa fekk mu bindoon ko nag doon ci teeru weeru koor ak di ko ci tatagal xasida gi mat na fukki bayit ak ñeent bi dafa tàmbali muslu ci seytaane tudd turu boroomam daal di ñaanal yonent bi sallallahu alayhi wa Dari wax ne wéru kooru màgg wi de teruna yow suñu borom sama soppe bi di sama xarit di wéru koor teruna bisub altine ci atum junni ak ñetti témèr ak fukk ak juroom dalal nako nuyo ko xasida gi ma bind kon ma ngi lay ñaan xasida gi nga nangul mako te defal ma ci barke te defal ma ci sax lu kawé sama njort aduna ak alakhirah suñu borom ma ngi lay ñaan yow mi nga xamné yaay borom wéru koor nga jël weeru koor jébbal ma te jël ma jébbal ma weeru koor maanaam lépp lu weeru koor di jariñ maa ngi la ñaan nga defal ma ko lépp lees war a def ci weeru koor maa ngi lay ñaan nga taw féexal ma ba ma mën koo def ne ko maa ngi lay ñaan nga musal weeru koor ci man te musal ma ci weeru koor maanaam lépp loo xam ne waree su koo def ci weeru koor maa ngi lay ñaan nga defal ma taw féex ba bu ma ko def lépp loo xam ne it képp ku def lu mu war a def ci weeru koor dana ko ca fekk maa ngi lay ñaan nga musal ma ca daan ko maa ngi lay ñaan nag nga nangul ma lii yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiban bila adadi ci noonu la sëriñ bi tàmbalee xasida gi ne ko yow mi gan gi gën ci gan ñi ñëw nga indaale ñu mbég ak xéewal yu bari maa ngi lay dalal maa ngi lay teeru maa ngi lay tatagal tatagal goo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem مكرما بخيرات وسداد yàlla boo dañ yow weeru koor di ñëw di nekk suñu gan di doon gan gu tedd ñu lay teral li ñu lay teralee nag mooy ay jëf yu baax ak ay jaamu yàlla ndax yow say bëccëg desu ci lekk desu ci naan muazzaman inda rabbil la sharika lahu wa inda ahli tuqa wal ilma war rashadi yàlla boo dañ di doon ku màgg doon ku màgg fa yàlla don ku mag ci mbolam yi nga xamne dañu ragal yàlla don ku mag ci borom xam-xam yi ak mbolam yi nga xamne ñu jub lañ ñaari beet yoyu serigne bi waxna ci waccu way bi nga xamne wër koor am na لا زلت ماهي أو زار وغاضيا أو طار وطار داغيار من الخلد وسافدا كل شيطان بما معه ومتحفا لذوي الإحسان بالصفد ومذهبا كل أهزان نضيق بها في الدار أفئدة يا مذهبا النكد وزائدا كل عام ما نفوز به min juudi muxnin karimin naafiin zayadi ñeenti bay dii ci toppit sëriñ bi ñaan na ci lenn ci njëriñi weeru koor waaye nag mu ñaan ko ci anam gu xarañ daal di wax ne yow weeru koor yàlla boo dañ di far ay bàkkaar yàlla boo dañ di faji aajo yàlla boo dañ di dàq bépp nëx-nëx boo xam ne day nekk ci xol yi yàlla boo dañ di tënk seytaane moom ñi mu àndal tënk googu koy tënk daal di nekk xéewal ci képp koo xam ne kuy sàkk lu baax la yàlla boo dañ yow weeru koor di dàq bépp njàqale boo xam ne dañu koy am ci suñuy xol ak ci suñu dund yàlla boo dañ at mu jot boo ñëwee di ñu dolli ay xéewal ci xéewal yi nga xam ne ñu ngi koy jëlee saa su ne ci suñu boroom xam ngeen yii sëriñ bi tudd fii yépp yu sax la ci wax yonent bi sallallahu alayhi wa ne jullit ñi dañ koy amee ci weeru koor يا شرر بن كريم فيك جاد لنا بليلة الخدر ذات الفضل والرقد إني أحبك حب الذات ذا طلب من مالك فيك إسعادا بلا أود ñaari bayit yi ci topp sëriñ bi tudd na ci lenn ci ngëneel yi nga xam ne weeru koor am na ko daal di ko ne yow weeru suñu borom mu tedd mi yow di ci yow lañu suñu borom baaxee guddi gu màgg gii di laylatul xadar muy guddi gu bëri ngëneel ak i xéewal maa ngi lay xamal ne bëgg naa la bëggu kawe bëgg naa la bëggu jëmm maa ngi sàkku ci sama borom nag ci sa barke mu defal ma ak texe goo xam ne jàdd du ci topp te xeetu du ci topp ذا توبة فيك أيضا ماضيا أبدا بالذكر والشكر والقرآن للأحد إليك قد تبت في شعبان عن رجب مجددا فيك فاشهد لي بترك ددي ñaari bayit yi sëriñ bi leeral na ci ne weeru koor weeru tuub ay bàkkaar la daal di ko ne maa ngi tuubal sama boroom tey jii ci yow tuub goo xam ne dama cee fas yéene sax di ci wéy ba faw ni ma koy defee nag mooy sikkar sant yàlla ak gën a jàpp alxuraanam ji tuubaloon naa yàlla ca weeru ndeyu koor tuubalaatoon naa ko ca weeru baraxlu tey jii maa ngi yeesalaat tuub googu ci yow weeru koor kon na nga ma seeral ca sama boroom ne bàyyi naa lépp loo xam ne ay caaxaan la foofu nag ñu xam ne li sëriñ bi wax ay caaxaan waxin la ndax nit ñi àgg ci seen borom ben seconde bu seen xel dem ci luddul yàlla sax dañ koy tuub kon lim bëgg wax rek moy julit bi warna tuubal boromam yeesalaat tuubam bu wër ko rek seet lishhad bi axdi kitaaballahi fiika huna ila irtihaliya yawm as-sabt wal ahadi واشهد بحبك حب الذات يا أملي وكن حبيبي يوم الهول والكمد ñaari bay di ci toppit sëriñ bi leeral na ci ne weeru koor bu agsee jullit bi war naa a fonk alxuraan leeral na ci fonk alxuraan ci weeru koor lan lay jëriñu jullit mu daal di wax ne yow weeru koor na nga ma seereel ne gën na maa jàpp alxuraan jàpp koo xam dama ciy sax ba faw te duma ko ba nanga ma seereel it ne bëgg naa la bëgg gu wér yow mi nga xam ne li may mbébét ci sama boroom maa ngi yaakaar mu defal ma ko ci yow maa ngi lay waxit bu ëllëgee yowmal xiyaam ca naqar ya ak tiis ya nanga ma nekkal te nanga ma seereel ci sama boroom xam ngeen ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne yowmal xiyaam weeru koor ak alxuraan dañuy ñëw di ràmm ci suñu boroom jullit ñi nga xam ne dañ leen fonkoon ci àdduna إني أحبك يا شهر الصيام بلا غش فأهلا وترحيبا بلا عدد سيرين بداني دانيال خاسي دغي نك واخو يو وير كور ماغي لاي خامل ني بغنا لا كو خامني دار راخو كون نك لما تامبلي وون واخ تي رك موم لا كوي دانيال تي موي ماغي لاي دالال ماغي لاي تاتغال تاتغال كو خامني امنا فمو تامبلي waaye amul fu mu yem kon loolu mooy xasida gi ci tënk gu gàtt bi ko sëriñ bi bind nag mi ngi ci naqar ak tiis yu metti ak jafe-jafe yu tar waaye loolu feeñut benn yoon ci mbind mi te li ko ko mayoon mooy wóolu gum wóolu yàlla ak doyloo gum ko doyloo kon jullit bi nga xam ne mi ngi ci jàmm jolow fuuf ji sëriñ bi nekkoon war na ko roy ci kennal yàlla ak sellal jëfam ak xam ne weeru koor weer la wu bëri woo xam ne jullit bi da cee war a profitoo ci jëf yu baax yal nañu yàlla defal koor gu ñu nangu te defal ko mbooleem jullit ci barkeb sëriñ bi